salaamaaleykum mbokk yi ak Touba TV ñu ngi leen di gërëm ci ànd bi ak ñun dañu daal di dem Sénégal Touba tey jii la ñu doon teg xeeru université bi nga xam ni moom la Cheikh Mountakha xalifa maam borom Touba doon amal ci dëkk bu sell ba dañu fay dem fekk fa suñu équipe ba fa nekk Serigne Cheikh. jërëjëf sëñ Gora Seck jërëjëf mbokk yi nga xam ne seetaan. Touba Argentine TV ñu ngi fii ci Touba Madiyana eh, ci université Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad moo ko tabax waaye eh, di tey jii di àllarba juróomi fan ci weeru décembre deux mille dix université Cheikh Ahmadul Ahad bi nga xamee ne nii moom moo ko tabaxal Cheikh Ahmadou Bamba waaye nag yeesalaat gi doon Serigne Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo toog toogaayu Cheikh Ahmadou Bamba lii du njëkk bi nga xam ne nii moom la sumba Serigne Touba fas yéene ko liggéeyal kon tey ji ñu wax leen rek ne euh, bi ñu xëyee ci suba ràññee nañu kilifa yu bëree bëri muy kilifay aada ak kilifay diine kilifa yu mag ci yoonu. murit euh, mën na noo wax ne buntu këru yoonu murit wépp rek ñëpp rek kenn ku nekk teew na fii ci université bi waaye ñu ràññee ci ku ci mel ni Serigne Mamor Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Mourtala Serigne Sidi moom Cheikh Abdoul Ahad euh, Serigne euh, Abo moom Cheikh Mouhamadul Fadal ak euh, ñi ñeneen ñi nga xamee ne nii ñu ngi fii dafa tolloog euh, fii ñuy waxe yéen nii dañoo àggagul te kër ga pour mën a waaye daal euh, loolu mooy ñi nga xam ne kilifa yi nga xam ne nii jot nañ leen fee ràññee waaye nag Cheikh su Macky Sy na noo wax ne daal kil képp xalifa walla képp koo xam ne ni kilifa nga kilifa nga ci yoon wi muy kilifa ak aadam muy kilifa ak diine ñëw na ci université bi euh, kon nag euh, bi nu demee ba nga xamee ne nii nag midi teg na ay simili ci la sëriñ bi agsi moom ngeen di gis muy nekk ci oto bu ñuul boobu noonu ànd ak euh, ñi mu war a àndal muy ay jëwriñam ñu ñëw bindikee fekk Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre moom moo ko waaw moo ko gàttandu euh, daal di koy dalal ànd ak moom dem ba ci biir sëriñ bi yëkkati ay kàddu bokk na ci la mu wax daldi di ne lii. jëf ji mu def nii nee na lii li tax mu def ko mooy yëkkati kàddu yàlla moo tax mu def ko moo tax mu yëkkatiwaat université bi ngir yeesalaat ko loolu nag day dëppoo bëgg-bëggu Serigne Touba bi nga xamee ne nii mooy diini kitaabul Moustapha la xayru ak euh, lil Moustapha na waytumaa yu jaddidu sunnatahul xarra wa inni ahmadu ak it inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan xadiman wal muhayminu shahidu loolu day firnde na rek ne taxawaayu Serigne Mountakha bi ci fii mu génnaat ci eh, taxawalal Serigne Touba daaraam ju mag ji loolu kat moom mooy taxoon Serigne Touba sañ ci dëkk bi waaye loolu moo taxoon it eh, mu mu fu mu def rek fu mu dem rek samp fa dara waaw euh, pour wanewaat ne Serigne Touba euh, ay jéegoom kanam la jëm waaye du deltu gannaaw loolu firndeel la ko waaye tamit ñu ràñee ci nga xam ne ni kilifay aada yi mooy ki nga xam ne ni moom moo ji moom mooy mooy jëwriñu njàng mi muy euh, ki nga xam ne mooy jiite ministre de l'éducation ñëw na fi. ak yeneen i kilifa yoo xam ne ni ñëw nañ fi xam naa ne ci intégralité bi dinañ leen ko tegal waaye daal euh, ñu ràññee fi presse bi presse bi moom presse locale bi ak presse euh, national bi ñoom ñëpp daje nañu fi waaye site internet yi tamit euh, gendarmerie police ak sapeur pompier croix rouge mboolem service yi nga xam ne ni ñoo nekk Touba ak li ko wër. Eh, yemb nañ ci kanamu sëñ bi ngir jàppale ko ci eh, liggéey bi wuy si ko wuy si ko ci woote bi nga xam ne ni moom la wootee eh, université bi xam naa loolu mooy liñ leen di jot tënkal ci mbir li des nag xam naa ne ay image la yu ngeen di gis rek ñu ngi ci sóobu ci liggéey bi ngir fas yéene ay vidéo yi ngeen mën tee teel a jot lépp lool fi xew nag incha allah di ngeen ci jot fii ci Touba Argentine TV Serigne goro Seck